jawrin ay eh, babacar jawrin <laughs> waa sànni ma ñaan rek ñaari dimanche yëpp saa yu duggee maa ngi njëkk ci yow ah doy na waar doy na waar naka mu am nga jàmm maa ngi sant yàlla bu baax a baax ana waa Touba Mbacke ñu ngi fa ñu ngi jam. jàmm bu baax baax ak waa Parcelles Assainies ñëpp ngi ci jàmm ñu ci jàmm ñu ngi waaj premier waaw ñu ngi waaj ñu ngi waaj bu baax pare nañ dama gis benn vidéo mu mel ni da nga ne yow ak waa Pikine yi xaw ma dañ la mënta digérer wala dañ la mënta muñal wala lu xew ah non mo, man nag comprendre moo ko mais nag samay waay lañ sport la rek làmb moo ñuy booleeg ñoom. est-ce que du adversité bi moo tax. ah adversité bi est-ce que taxul. loolu la rek xam nga itam sport moo demee noonu chaque jour clan yi nii lay def quoi parce que boo féetee que ñu féetee Pikine noonu rek lay mën a demee waaw wax dëgg yàlla waa Pikine duñ mën a duñ la mën a kii nag moom mais du tee yaa ñoom mun ngeen doon ay nit parce que man Pikine laa takkee soxna. waaw mais seen diggante ak Boy Niang ñu bëri wax nañ ne adversaire yi nga doon am Pikine ak kii wuute na ci côté bëre stratégie. encadrement ak lu bëree bëri loolu loo ciy wax. dañuy ñaan yàlla rek yàlla mi dara tawul yàlla suturaalaat ñu rek mayaat ñu ndam rek ñu delloo buum ca boy boy. yow da ngaa da ngeen di ci boobu incha allah bu soobee yàlla. ana Modou ci la mu ne guddi yi. mi ci jàmm bu baax mu ngi feetu de. ca lam nekkoon non Modou amul jot googu sax. Ah. billaahi amul jotu sax naan ay ay feetoo ak yooyu. déedéet. mais Sa Touba combat dimanche passé bi lan moo ko téye am na loo ma waxoon balaa ngay lan moo tax combat mu mujj ba la gagné par avertissement waaw xam nga bi may dugg dama ne loon ndam laa ci loxoy lat loolu la yàlla dogaloon rek yàlla moo ko cërale woon victoire bi ne ci loxoom lay mujj ak lu coow li bëri bëri la ngay yóbbu coow li bëri bëri yàlla moo ko cërale woon rek par rapport ak ñenn ñi des fois bu ñu wax ci lak ci naan ay du bëreeg nangam ak sàngam euh, yow ñooñu loo leen di wax ak dëgg yàlla man am na loo xam ne man mënu ma ko d'accord quoi parce que man li ma xam mooy kuy daw nga koy dàq muy daw kooku mënu ngi ne bëriwut moo xam ne mi ngi attaqué mi ngi def li mu parce que na keroog loo xamante ni bett nañu bëri ci histoire lamb jàppuñu woon ne Siteu mun na bëre ak Lac de Guiers toll noonu ak temps bi li mu ci tenir ak li mu forcé ak li mu def yëpp li mu joxe lépp ba jénn ci làmb ji ñu jox Lac de Guiers par avertissement nañ dawal compréhension xam ne làmb Lac de Guiers nii mu def ak Siteu def na ko fekk Modou def na ko fekk Boy Niang def na ko fekk Eumeu Sène contre Boy Niang 4 appui la mu am ci ndam yaa ngi dégg kon Siteu bu amee lii ci moom ah dafa am lu mu koy dolliwaat rek ci histoire làmb. Siteu ak Balla Gaye bi nit di wax wala Siteu ak Ama Baldé yow Siteu loo ko gisal. ah maa ngi koy dégg rumeur nag combat mais xam nga yooyu moom doo ci mën a wax parce que comme que ñoom ay affaire u staff la yooyu am na ci yoo xam ne doo ci mën a sori quoi. mais boo ko doon xelal loo koy xelal. mais daa bokk ci làmb rek bu ma la ko doon xelal moom wax dëgg yàlla mooy li may wax rek chaque jour da ngay toll foo xam ne Sénégal dafa naqaree waxee. tollu ma foo xam ne instant yi mun naa nekk naan Siteu lii wala laa quoi wallaahi di ma ko di ko xelal nii ci ay kii nañ bàyyi noonu rek am na stop. foofu rek nga ci foofu laa ci bëgg a yem quoi. solo ko <laughs> bëgg nañ doom day. maa ngi noonu. jaajëf.